ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñaari gaynde yi ñu war a géewal tey ci tàkkusaan ca Côte d'Ivoire di lion de la Teranga ak lion indomptable yéene kay yu bari xëy nañu ci taxaw ñu taxaw ci xët mu njëkk Soleil national mi bind ne Coupe d'Afrique 2023 Sénégal Cameroun tey la cinq heures ci ngoon mu dolli ci ne suñu gaynde yi pare nañu ngir wane seen bopp maxub tay bi ci diggante Sénégal ak Cameroun Sud Quotidien soc des lions la ko tudde la si nekay tudde ko duel de lion Le yu xiif ñoo a daje Vox Populi gis ci maxub tay bi max revanche ne mi ngi ñuy xamal ne Cameroun heure boo dajeek Sénégal Coupe d'Afrique defal radio Mané ak gayam nak journal bi nee nañu waaj nañu ba jek ngir lolé dak source wané ko moo taxit waxtu fayu jot na lise ko nañ ak luñ ci mënd di dégg dal du yomb fi xex bi nara gëna tare ci terrain bi nak yene kay bi nee nañu mooy ci milieu terrain ba milieu de terrain bu Sénégal bi di Idrissa Gana Gueye nee ci xët mu yene kay bi wa Cameroun budé dee rek lañu bëgg dinañu fi fekk bu ñu ñëwee danañu ko doyli sëkk georges Kevin Nkoudou bokku ci football katu Cameroun di ñu wax ci yene kay bi ne Cameroun du équipe bu ñuy suul ñun duñu ñexu ñebem kenn stade yene kay nañu wax ji wax ci len rek la muy daje ak Cameroun gagné ko assurer qualification bi tey tey ji ci a ko loolee rek mu di qualification ci huitième de finale yi mooy lu ñu soxla mënuñoo dégg leneen du yomb nag ndax Rigobert Song entraîneur bu Cameroun mi ngi wax ci xët njëkku record yéen a max bi final la ko jàppee amatuñu lenn lu ñuy calculer gagné Sénégal jël trois points yi loolee rek la gis ñu gis ci xët njëkku journal bés jour ñaari entraîneurs yi muy Aliou ak Rigobert Song journal bi teg ci bind Songo daan ñu daanu ji góol bu Sénégal bi di Edouard Mendy ak góolub Cameroun bi di André Onana ñoom ñaari góol yi yéenekaay bi nee nañu ñoom it ñi ngi leen xaar ci match-ub bi keneen ku ñu bari di xaar ci match-ub bi di Lamine Camara l'observateur mi ngi ñuy wax ne moom ñaara koy xaar benn mooy mu confirmer li mu wane keroog ba ñuy football ak Gambie ñaareel ba mu bàyyi xel ci match-ub bi ne jël na carton jaune keroog ba ñuy football ak waa Gambie mi ngi ñuy fàttalit Sénégal bi bëgg conférence de presse na démb doon léral ak tontu Amadou Ba mi ko recours sursoit nañu tontu ko rek yam ci yak na ko lu wax xat lu melni ni lool weñ wu ci dal day journal L'Info di ko dëggal ci xëtamu ñëk ak li mu tuddee tontu lu wax xat lu jugee ci Cheikh Tidiane Dièye jëm ci Amadou Ba ci libération mu fay léral mom Cheikh Tidiane Dièye ne musuta milité ci benn parti politique tay du nit ko xamné nguur da ko tital mu ne bu candidature Ousmane Sonko bi jallé suba moom dafay retiré bosam dem jappalé ju ko suba ci samedi ji ñaar fukki fan janvier Walf Quotidien mi ngi ñuy fatali né ci la wa conseil constitutionnel wara siwal liste définitive effectif bu candidat yi war a bokk ci présidentielle yi waaye candidat yu ci mel ne Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye Ousmane ak Karim Wade seen dara leeragul seeni mbir lëj na lëj goo xam ne ci sursis ca la nekk reporté gi ñuy ruumandaat ci présidentielle yi 2024 yi enquête dina mi ngi ñuy xamal ne ñi fare ci opposition bi bokkuñu ci gis-gis ñeen fukki candidat ak lu teg yi ñu rëkkale ñoom li leen gënal mooy ñu reporté élection yi Khalifa Sall ne d reporté élection yi mu njaay siise nee na ay caaxaan la farce politique la ab dil bu ñu bëgg teg ci kaw démocratie réew mi te duñu ko nangu ñi ñu rëkkale lettre bi ñu bind président Macky di sàkku ci moom wax ak waa conseil constitutionnel ñi ko def mu njaay siise nee ñoom it il faut dañuy xam li ñu bëgg ne mënuñu fee taxaw di tuumaal Macky ne dafay instrumentaliser justice bi ba noppi bëgg a taxaw di sàkku ci moom mu wax ci décision bu fi jàppoon libération ne nañu libéré nañu ko génne ko ci kaso bi ba ko réew mi ko buubal koy dëbësam yóbbu ko aéroport yàpp ko ci avion delloo ko ca France ga mu dëkk expulsion fast track la ko def ki ñu war laaj nu ko yoon di def mi ngi ci l'observateur ubbil yéene kay bi benn waay la bu ñu naan taala taala ab gelam da koo mere mu bëgg koo neexal di seet lu ko neex tax mu jël auto service bi ñu ko joxoon jox ko gel bi ngir mu def ci balaat maanaam jël oto bi di taxawaalu ci mbedd dëkk bi ndeke xale bu jigéen bi amul permis te dawalu mokkul tax mu tege ci kaw tali bi rajaxe mbëkk ñaari wotey jàmbur ba yàq leen CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal,